sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey inna allazina baayahu rasula bi xidmatin qad baayahu aljalila inna allazina bi xidmatin qad baayahu الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام hasbunallahu wa nixmal wakiil assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala mbokki jullit yi mbokki lislaam ji yépp ñu ngi leen di nuyu nuyu jullit di nuyoo bu sell di nuyoob lislaam di ñaan suñu borom subhaanahu tabaaraka wa taala suñuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yërmande yàlla ak ak njëggalam ñu dellu siwaat ci sunu jataayal yóbbulum ndaw ñi ci sunu télévision bii di Murit TV muy jotaayal xam-xam waaye di jotaayal fàttali konte ci li nga xam te ni moom la ñu suñu borom subhaanahu tabaraka wa taala dénk ñu nekkoon doon jàngale nag téere bii ñuy wax zaadu zawit taxallumi muy téere boo xam te ni dina soññ nit ki ci wàllu jaamu yàlla am lu baree bari ci ay fànn yu baree bari ñu nekkoon ci bunt bii nga xam nii nag sëriñ bi daf ci doon fàttali doomu aadama bi ne ko nay taqoo ak xiif gu digg doomu ndax kat day sellal ab xolom day tax mu mën a topp yàlla doon ko tere it ci regg gu bari mooy lekk-lekk gu bari ndax day tax kat du mën a jaamu yàlla waaye regg waxuma gàllankoor yim lay gàllankoor yépp de mu ne mënee su koo lim waaye nag dina ci indi juróom benn yoo xam te ni dina la ko dénk nga man koo jàpp bàyyi ko xel yow mi nga xam te ni danga fas yéene topp sa boroom subhaanahu tabaaraka wa taala muy juróom yoo xam te lim na ko muy juróom yu am solo moo tax mu ne min ha tafi li tuxsa nee na am na juróom benn yoo xam te ni na ko lim nga takk ko jàpp ko bu baax te di ko bàyyi xel yow mi fas yéene jaamu sa boroom te fas yéene koo sellal mu ne taqsiyatul xulubi mooy wowal xol ya ifsaadul ak yàqu xel ya ibtaaluhu ak yàqam xefsan ak wattu mooy mokal yu saxixu goog dana wéral an nuxuula toxal ya wa ak diisu cër ya an xibaada walif jaamu yàlla waxan ulumin walif xam-xam ya xad xawat gog na ko ifaada njariñ ya wayan zuru ak muy dimbali as saytaana saytaane wayu xawwi tamuy kàttanal allazaati bànneex ya ay dem ba tey faxsaru kon na ngeen wattu al aafaati gàkk-gàkk ya mu ne na nga xam ne lekk ba sa biir fees rek foo toll sa biir fees dis gan mu ne baaxut de bokk na ci yi nga xam te ni daf koy waral ci doomu aadama bi ci digganteem ak boromam ba du ko mën a jaamu mu ne dafay wowal xol ba lekk ba biiram fees dell rek fu mu toll ñu ne loolu dafay wowal ab xol koo xam te ni nag sab xol dafa wow mooy tax doo nungu ak jaamu yàlla doo nungu dëgg sa xol bi lu mu gis loo xam nii kat. yërmande war nga ko cee am doo ko ci am ndax xol ba moo wow doo digg ak waaraate luñ la wax doo ko dégg xol bu wow da koy waral waaye mais day yàq am xel de ki nga xam te ni xelam dafa neexam bu baree lu muy regg na dem ba xelam moom dootul neexati dootul neexati de day yàq xel ba xel ma nekk xel ma naqari waaye mu nekk ki nga xam ni xelam dafa neexan muy jàng di mokkal bu baree lu muy regg ba ëpp na dem ba loole mu daan mokkal dootu ko mën a mokkalati day fëtt day tàmbali di bari lu muy fàtte waaye bokk na ci ba tey dafay diisal cër ya cër yi day diis gan ba nga xam ni kii moom du mën a jaam yàlla day tàyyal bëgg a nelaw fu mu toll du sawar ci ak jaam yàlla waaye nag xali xam-xam yi nga xam te ni xam-xam yu am solo la yoo xam te ni làqoon na ko yu am njariñ day tàmbali sax di ko fëtt te xam-xam yu am njariñ yooyee dootu ko mën a dencati ndax régg gu ëpp ga da koy lor ba loolu lépp du ko mën a am waaye nee na régg gu ëpp dafay dimbali saytaane ndax saytaane kat dafay daw ci nit ki comme ni dereetam dawee ci moom kon nag bu fekkee dafay reg reg bu ëpp day dimbali deret jooju ba nga xam te ne seytaane da ciy gën a mën a daw gën koo mën a sonal kon nag reg gu ëpp lu jar wattandiku la rawatina koo xam te ne nga bëgg sa borom ne ak bànneex reg gu ëpp day dimbali seytaane waaye day dimbali sa bànneex ba sa bànneex man laa gañe mu ne kon nag na ngeen wattandiku gàkk gàkk yooyu kon ba mu njëkk a lim mooy wowal xol ñaareel ba mooy day yàq am xel day diisal ay cër day tax a fëtt la nga jàngal te day dimbali saytaane waaye nag day dimbali sa bànneex ba nga xamee ne saytaane ngir mu gañe day yomb kon nag mi ngay wattandiku gàkk-gàkk yooyu mu ne wattalabul xalaali sàkk lu leew nag mu ne fardun faratala yantami goog dana askanu li kulli muslim ñëpp ñeel bépp jullit bi xëy waxami ci luudu ak njuumte laa yan fahu du jëriñ alxilmu xam-xam wala alxibaada du caagéen ak jaamu yàlla bi ak li lil xaraami ci lekk lu lewut lekk lu xaraam xinda saa saada ca fasang ya mu ne tamit sàkk lu lew dénk naa leen ko bépp jullit rek war naa def sàkk lu lew muy farata ci jëmmam waaw saakul la dafa waa nekk faata ci jëmmam ndax kat nit ki mënta ñàkk bañ a lekk mënta ñàkk bañ a naan mënta ñàkk bañ a am fu muy tëdd ak loolu lépp nag mooy nag na nga fexe ba sagam loolee mënta ñàkk te da koy wuti boo koy wuti na ko wut ci anam wa sunu borom subhaana tabaaraka wa taala bëgg nga wute ko ci noonu mooy sàkk ko ci sàkku lu leew bul sàkku lenn loo xam ne da koy sàkk tam nekk lu xaraam kon nag jullit bu ne farata la moom mu sàkk lu leew sagam lekk ak naan ak tëdduwaay ak yooyu yëpp mënta ñàkk ci ab jullit kon bu koy wut na ko wut ca anam wam ko war a wute mu ne ki nga xam ki nga xam te dafa wut alal ci wutin woo xam ne léwut donte dafa nekk ku am xam dafa nekk kuy jaamu yàlla ne di lekk lu xaraam loolee nee na jaamu yàllaam boobee ak xam-xamam bu bay boobu du ko jariñ dara ndax loolu lépp day mel ni <coughs> loolu lépp dafay mel ni pënd bu wisaaroo rek naaw waaw loolu moom kon lu jar a wattandiku la kon képp koo xam da ngay jaam yàlla wala ngay sàkku xam-xam ba pare lekk loo xam ne lewut loolu ngay def lépp du la amal kon lekk sàkku lu lew ci ab jullit farata la mënta ñàkk mu ne wax kon na ngeen wattandiku mu ne lësi la nga xam te ni ay xayitu mu wóolu ngeen ko bi kaw ni yii ci ak nekkam alxaraama lu xaraam aw zanantum mu wala ngeen njott ko wal taktafu na ngeen fegu bi maa ci loo xam te ni yuqimu sulba day dëgëral ndigg ya na ngeen fàggu ci loo xam ni day dëgëral seen ndigg mina taxaami ci aw ñam li tuuti rabba ngir ngeen mën a topp seen borom kon na ngeen fàggu fa fàkku lu lew na ngeen sàkku lu lew fàggu ko fàggu koo xam te ni da ngeen koy jëfandikoo ngir mën a jaam yàlla bu dee lekk ak naana ak yooyu yëpp mën da ñàkk boo koy def na nga ko def ngir dëgërlu ngir mën a jaamu yàlla te bañ koo def ngir regg kon boo jëlee lu néew loo xam te nii mën nga cee taxawal sa borom jaamu sa borom rek mën nga cee dëgëral sa say cër rek na nga wàcc la ca des ci aw ñam waaw ñam bi kon loolu rek moo ko tax a jóg mu na ngeen wattandiku kon lépp loo xam te nii leer leen ne lii lu la wattandiku leen ko boo leen ko njortee sax wattandiku leen boo leen njortee ne lii lu xaraam la sax wattandiku leen ko kon dafa bëgg lépp loo xam ne dañ koo sib sax luñ sib sax nga bàyyi ko waxuma laa rek lu xaraam waaye luñ sib sax wala loo xam ne yaakaar nga ne xaraam na sax woccal loole sànni ko fële jëm ca la nga xam dafa leew lépp lu lënt bàyyi lu la leerut bàyyil looy sikki sàkka naan lii lii nag nii rek bàyyil loolu nag lu am solo la lu jëra bàyyi xel la kon yooyu bokk na ci yi nga xam te ni regg daf koy waral dafa mel ni amoon ci waxtu wi mat na kon dañuy wàcce fii kàddu yi leen jox dig daje ci beneen jamono incha allah ci Mouride TV ñu ñaan suñu boom defal ñu jàmm ak yërmandeem defal ñu xéwal yu bari te barkeel surtout daal ñu tey ak ëllëg noonu lañ koy ñaanalee képp koo xam te ni ñu ngi teewlu jotaay bi fu mu toll nekk ci biir réew mi ñu nekk bitim réew yàlla nañ saa borom defal dégg a topp ci barke bi nante sallallahu alayhi wa sallam in uriidu illa al islaaha ma stataxtu ma tawfiiqi illaa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu